catégorie 100 kilos Papa sor sor Kaulak Kaolack sor ndeysaan Kaulak ma leen di fàttaliku bu bu gagné lii rek qualifié ndax door nañ Saint-Louis attention jël la tànk Papa sor soox soox bi Ziguinchor jël na tànk Papa Ngane attention laa ilaaha illallaah arbitre bi nee na Papa Ngane da ngaa génn jox na avertissement waay attention Papa Ngane daw na jël tànk ba jël na jël tànk ba daw na jël tànk ba téye na ko la na ko def attention daan na ko la ilaha illallah waaye Papa Ngane génie de la lutte Kaolack 3-0